jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ koy waxee saa su ne mbokk yi dafa am loo xew démb ci li nga xamante ni mooy interview bi ma def kenn koo xamante ni champion la ci làmb muy en 2000 am loo xamante ni daf ko yëkkati teg ko ci ndodd Boy Faye kenn koo xamante ni mag la ci booy Faye woolu waa wasaare làmb bëggoon cee waxtaan lépp loo xamante ni day defar làmb ak ñi nga xamante ni woon xamuñu ñu xam sëñ Bas maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sëñ Jili di nuyu sëñ Bas mi nga àndal di nuyu képp kuy amateur làmb di nuyu ñi nga xamante ñooy internetu wasaare làmb. lan moo la dugal ci làmb. waaw lamb ay amateur lañ donc juddu ci famille boo xamante ne ñëpp ay sportif lañ d' abord avant ñu nekk euh, amateur lamb dañu nekk sportif donc euh, làmb nekk suñu kër ñam rek muy bëree donc muy devoir si ñun ñu accompagner ko ci li nga xam ne mooy passion ak euh, mooy bëgg-bëggam. donc en tant que sportif professionnel ñu ne pourquoi pas ñu jàppale Boy Faye mi nga xam ne suñu rakk la encadré ko ba mu yegg fi moromam ñu yegg parce que gis nañ ci moom talent te wan nañu fulla ju tax ñu war ko mën jàppale. Hmm. bari na làmb yu bari yoo xamante ni buy dem da ngeen di ànd wala combat mi yaa waaw làmb defe naa ne diggante deux mille avant deux mille quatorze ba deux mille quinze ba deux mille seize euh, peut-être bi muy rangale di gagné ay millions boobu amoon naa temps maa doon ànd ak moom mais moment yi peut-être moo duñu ànd fépp fu mu jëm parce que suñu jot mayatuñu ko suñu liggéey mayatuñu ko mais nag ñoo koy encadré ba fu mu toll ak ci lu mu nekk muy man ak euh, suñu benn grand bu ñuy wax Ibrahima Niang xam naa dégg nga turam ci Boy Faye sax mu ngi dëkk sauvegarde moom ñoom ñaar ñoo dëkk kooku daal man ak moom ñoo ko encadré ñoo yor léppam ñooy négocier tamit ay ay combat ak léppam ñoo koy négocier waaw. mu mel ni dafa am loo xamante ni daf la jaaxal la bett ci wax bi wax ci kaw waaw man bi ma seetaanee interview bi dama noon duma wax duma ci wax parce que ay athlète lañ. peut-être ñoo bokk seen ginnaaw raay euh, l'an 2000 Fallou Galas mag la ci moom mu nekk mbër mu ma respecté yàgg ko bëggee yàgg ko supporté man bi may supporté l'an 2000 def naa boobu boo fay xameewul làmb parce que l'an 2000 ku ne xam na ne champion la bi ma koy seetaan génération ñoom Malal Ndiaye muy reño ci mbapat ñu naan ko Fallou Galas parce que boobu kenn xamul booy fay kon su ma déggee mu am nu mu waxee euh, ma suivre commentaire yi ma gis ne peut-être kat nit ñi ñu ngi réagir te ñu ngi réagir ci loo xam te ne xëy na maîtriser wuñ ko ma ne nag devoir la comme dama fekkee woon nettali moom ki fekkee yaakaar naa moo ci war a gën a mën a wax ma ne comme lépp man su ma kanam la xewee ma fekkee lépp jaadu na ma leeralal euh, askan wi ak euh, internetu wasaare TV wata wasaare làmb ñu xam en réalité lan moo xew. bu maa fekkee ñëwee maa dégg day tuxu kon ñëpp ñu doon wax ne damaa dégg ki fekkee mooy wax li xew mu wax ko gànjaay xaw ma Fatick nan la ban dëkk la. Euh, gànjaay la euh, gànjaay la li xew foofu la li xew gànjaay la xewee. Euh, moo topp ci semaine bi nga xamante ni soo rappelé wu mooy semaine bi booy fay finaalu ak euh, Reug Reug ci cinq millions yi defe naa Yaxya Diop Yékini tëggoon Faata production soo xoolee semaine boobu noonu le 12 le 12 avril 2016 defe naa su ma juumul ou 2017 ma mën naa jum ci date bi mais ñu ñu baal ma suma ma jumee xam dafa yàgg mais c'était un 12 avril Boy Faye moo finalu Iba Mar Diop 2 millions gagné fa 1 million 200 le 17 avril dimanche bi ci tegu. Euh, ni teg cinq millions yi. Euh, Demba Diop. Boy Faye ñëw final of ak rek Reug moo génnee demi final euh, Ibou Ndiaye Obali. moo génnee Caaka fay moo génnee Kool bu Zap moo génnee Seexu Diouf euh, ñu ko wax Seexu Sum donc Zoro bi semaine bi ci topp. ñu woo ñu gànjaay làmb un million cinq cent xaw ma un million neuf cent suma ma jumul mise bi. bi ñu fa dajee poids lourd yi bëri wuñu woon Boy Faye moo fa nekkoon. Caaka fay l'an deux mille Pape mbaay Gora Sock ak euh, amical bu Ngolaj je pense que ak euh, na benn ancien mbër bu fa nekkoon waaye maa ngi damay fàtte tur bi peut-être xëy na tour bi dina dinaa ko fàttale ko bala émission bi jeex peut-être ñooñu ñoo fa nekkoon comme favori donc bi ñuy bëree ba quart de finale amical taxaw njëkk a bëree daan amical mu ngi daan Pape Mbaye quart de taxaw demi-finale caaka daan taxaw demi-finale ak beneen demi-finaliste bi donc beneen quart de finale mujj mu des Boy Faye ak l'an 2000. donc bi ñu war a bëree euh, Fall mu ñëw si moom mu ne ko boo yow su ma rakk nga. donc li jiitu loolu xamoon naa seen relation xamoon naa seen diggante parce que naa ne ñoom bokk ginnaaw raay peut-être doon nañ ànd di dem saal lépp comme nii ni ko mbëri di bokk koñ di defee. donc mun a ko su ma rakk nga waruñu bëree. parce que bugg naa nga may ma ma jàll. Hmm. Euh, parce que yow jël nga sa saison bi macha allah mu ngi neex ci yow. boobu ne a loolu dëgg la mais man aussi dama am kilifa am ku ma donc bi mu ñëwee gis ma ma ne ko nag man bi ma ànd ak yow dafa am pacte bu ñu signé woon mooy ay mayante làmb yooyu peut-être euh, bugguma ko benn. ñaareel bi mooy nit buy may na may lu moom parce que yàpp naa bu ñu tegee mise bi rek amateur yi ñoo ko moom. parce que ki teg mise bu ko mënee teg parce que amateurs yi ñoo ko uyu si dagg seen billet kon ñoom aussi daf ñu jar a bàyyi xel ñetteel bi mooy quart de finale la te jiital nañ fere dèjà dañu luyee oto dem di nga def ay ñaan lu mu euh, minimum dépensé gum nga cinquante mille jëm kaw donc est ce que soo ko mayee euh, loolu dina la ko mën rembourser ndax bu yeggul final est ce que dina la mën a jox dara man waa loolu de dëgg la ma a ko kon demeen ngeen bëre ku mun mu daan. su la mënee mu daan la il passe soo ko mënee nga daan ko nga dem bëre ji sa demi-finale donc ñu dem ñu bëre <laughs> yàlla def booy fay daan ko bi ko booy fay daanee dem demi-finale daan dem finale moog caaka caaka daan ko mi daan caaka sax du ma ko fàtte da ko songu takk yenu yëkkati ba mu jóg bi mu ko yëkkatee ba jóg mu def faux mm. loolu sax la ko caaka daanee mais yenu na ko ba ba mu lang ba nit ñi daw dugg après booy fay def faux pas faux pas bi fekk ci ko mu daanu mm. keroog sévi bi sonn na ci trop sax te boobu mu ngi waroon demaale lendemain benn làmbu Thiès il a fallu mu yóbbu ko ci benn médecin ci guddi gi Kaolack ñun defar CV bi delloo takk def ay massage pour mu mën a bëre dimanche bi ñu jaar làmb boobu noonu Thiès ñu bëree foofu gagné drapeau bi ñibbi si donc jour boobu ba keroog dimanche la Boy Faye ak l'an 2000 door dajeewaat. kon yow da nga bëgg a dàq li l'an 2000 ne Boy Faye moo ñëw ci moom ne ko gën a may ma ma dem. mu xam ni xale la boo xamante ni ku ko jàppale mu dem mu may ko mu dem kon yow may boobu da ngaa dàq ni loolu amul. dañoo bëre ba mu daan ko. dañoo bëre mu daan ko ci bëre. honnêtement booy fay jaral ma wax lu amul l'an 2000 jaral ma wax lu amul. keneen ci àdduna jaral ma ko wax naa la ko si sànq bi ma ooyee nee la booy fay man maa koy defal. parce que man la doon suma rek devoir la ma defal ko. Hmm. amul lu may xaar ci moom. je suis à l'aise yàlla dimbali na maa ngi jàng naa pare maa ngi liggéey je suis à l'aise donc maa ngi sant yàlla. kon jarul moom may wax loo xam ne amul mais nag euh, du ma seetaan ñiy wax loo xamante ne mun na yàq deram te mu nekk wax yoo xamante ni c'est pas fonde ma mun koo ma mun a def demande di ko bàyyi muy jàll. donc loolu mais amul fenn fu boo fay waxee l'an 2000 may ma ma jàll muy l'an mille muy keneen amul benn mbër boo xamante ni mos na dajeeg booy fay boo fay ne ko bàyyi ma ma jàll amul. Mm-hmm. daa am rek ay booyam comme nu ko gars yi defee seen ay booy fii nii ci làmb ñoo xam ne bu daj buñ dajee woon mun noonu leen wax bàyyi leen na ma jàll mais du ko def dafay bëre ba nga daan ko wala mu bëre ba daan la am na booy yoo xamante ni tey bu doon loolu doo gis booy bawal ada ah booy bawal day bëre ak booy fay te pourtant ils très bonne relation franc ak booy fay <laughs> mais foo gis kii gis fa kële te bu ñu dajee dañuy reyante parce que ñoom dañuy ànd di entraîné ji bokk parcelle mais bu ñu dajee dañuy bëre booy fay dañuy bëre moo góor te soo demoon saal léegi nii di ngeen fekk ñoom ñaa ñu nekk fa kon donc àndal nit ki takkiwul na fu ngeen daje da nga ko war a may parce que ku ci nekk aussi da nga ñëw di si te nee naa amateur aussi li ñuy jël si ñoom amateur dañ si am fu dañ si am euh, droit moom ko parce que ñoo dagg billet pour seetaan làmb kon du yoon kenn di fa mayante moo tax ma la may bi moom mosul am. l'an 2000 def ne Garga Mbossé mi muy àndal moo ko moo ko manigancé ba mu bëgg a jël euh, ñoom ñi nga xamante ay grand am la ñoo ko yar yar booy fay ci loxoom nee na booy fay bëgg a jaayante ñoom doole daan ko ba pare li ko gën a métti nee mu daan ko terrain Adrien Senghor di bàkk di fëgg dënn bi naan man la te nee na booy fay daan ma du ndam ci moom. mais amul benn yoon bu booy fay dem ci public di bàkku ne ne ne ne ne dama am doole parce que laa ma jooj noonu ku fa ñëwoon xëy na nag ku yàlla wax ne mooy jël mooy jël mais ñun bi ñuy ñëw gis tirage bi nu mu demee dinañ xam ne peut-être booy fay fii su ko jëlul tamit peut-être miracle lay doon parce que il était le grand favori tamit quoi qu'on puisse dire. parce que làmb ji keroog booy fay moo gaan ñoo fay favori waaw te te te gaan éliminé nañ ko ci ci ci ci quart de finale bi donc euh, yoon bi dafa gënoon leer ñëpp xam ne moo ko jël moo ko moo ko war a mun a jël mooy favori bi donc kon su ko jëlee amul lenn luñ doon lu mu def lu extraordinaire mu jël mu jël euh, mise boobu noonu. moo tax suñu su ma déggee mu ne dafa jug mu jubile na dama am doole noonu loolu du waxu sax Boy Faye mosuma gis mu daan nit ba ne dama am doole wala dama kii non yàlla moo ma dimbali lay wax munuma ma fi yàlla moo fi yàlla ku am yàlla la may yàlla moo ne man man maa waroon jël tey jël naa dañ koy sant yàlla mais mënuñ kenn donc loolu waxu Boy Faye la. moom nee na dañoo dem biñ bi mu koy may ci may bu njëkk ba daf ko may booy Faye daan jël cinq cent mille may ko ci dix mille francs nee na xam nga ni ku ànd ak moom jàppale ko ci làmb defal ko lu ne fa mu daan jaayee ndox nee na saa yu ñëwaan maa ko daan jox weccit di ko may muy ndékki ba tey mu dem jël compétition bu mel noonu cinq cent mille di ma may dix mille francs mais mbokk internet yëpp laaj nañ pour pourquoi dix mille francs waaw loolu euh, la ñu seeq moom ñoo ko seeq xam naa ne daal duma taxaw ma ne booy fay mook l'an deux mille séquñu dara ma ko waxee wax loolu amul parce que nee naa la maa ngi ak ay photo archive yoo xam ne Boy Faye ak lendemain ñu ngi ciy saal te boobu Boy Faye mënul yëkkati sax cinquante wala trente kilos donc kon diggante bu bu la mais dama ne la comme mel mooy eh, diggante mbër bu mag mbër bu ndaw la donc boo nekkee si koñ ngay jàng bëre nga gis champion bu mel ni lendemain ngeen bokk koñ donc da koy topp parce que da koy fan yàgg na ko dimbali mais tekkiwul ne peut-être euh, soo ko yàgg dimbali rek après waru leen bëre waru leen bëre déedéet da demee demeewul demeewul noonu parce que lamb moo leen boole te bu doon combat nommé xëy na mën nañ bañ am ñu ne Boy Faye l'an 2000 donc mais lamb tournoi am la mu boole leen ñu bëre bi mu paree euh, mu ne mu jox ko 2000 euh, mu jox ko 10 000 non du 10 000 peut jox na ko keroog 20 000. Mm. man maa ko jox loxoog loxo. kon da nga bëgg a wax 10 000 yi mu wax waxul jox. 20 la ko jox. te si man la jógee maa génn xaalis booy fay mosul gagné mi téye xaalis bi sama poche la jógee mu jox ko jox euh, góor a soog dix mille. joxaat yeneen mbër yi nga xamante ni daan leen ci course bi ñii 5000 ñii 2000 ak yeneen supporters yoo xamante ne dañuy ñëw seetaan si bëgg a ñibbi nañu bàyyi jàpp leen ci ñu jox leen man booy fay su gagné 1 million 200 jàppal ne 200 bi si stade bi lay des. donc loolu moom si philosophie la te ñu ñu ko encadré muy man muy Ibrahima Niang loolu lañ ko gëm loo que li ngay gagné il faut nga ciy génnee sarax peut-être ñun loolu dañ ko jàppee ne peut-être sarax la boo xamante ne xëy na ku lekk ci sa wërsëg mënu la catu da koy wax nit bu lekkee ci sa wërsëg tey catam du la jaab moo tax fu mu gañee dara même final bu ko pertee dina joxe loo xam ne sa jàpp naa ne ki jël ki jël mise bi sax joxewul loolu noonu te loolu culture la boo xamante ñun imposé nañ ko ko ba mu bokk ci moom léegi waaw. ban message ngay lancé l'an 2000 ci wax ji mu wax. waaw di ko wax ne moom champion la. tey comme ni mu ko waxee am na moom amatul lu muy prouvé ci làmb wax na dëgg parce que euh, ku war ba war gaynde ba wàcc ko euh, loo yëgati du la saf dara l'an mille amul lu mu deful ci mbapat l'an 2000 amul lu mu deful ci ci bëre dóor donc kon jàpp naa ne que lii moo bay booy fay daan ko demi final du dara comme ni mu ko waxee am na fu rafet mooy fu mu ne jàpp mu ngi ci yoon euh, jàpp naa ne dafa war a dem mun na bëre. gëm na boppam ma gëmloo ko boppam donc loolu rek rafetoon na ci wax ji mais yim ci dolli rek moo xaw a euh, tilimal interview bi. sax ragal la. waaw <laughs> non loolu bu dee ragal la yow amateur nga xam nga. ñun xam xaw moom moom moo wax talaan 2000 lu mu wax ci làmb. dañ ko ragal parce xale boo xam ne 94 nga judd. 94 nga judd amoo koo xamante ni dafa sës si yow nekk nekk mbër. bu la mën a encadrer amoo mag boo xam ne dafa am ay millions yoo xamante ne mën na la jox na la damal uti damal uti lii damal defi lii damal nga génnee ginnaaraay imposer sa bopp étant saalum saalum nga imposer ba ñëpp xam ne Boy Faye ñëw na donc loolu rek bi mu ciy dugg ñun loolu rek la si jublu woon tey fexeel ba yow ñu ñu xamee sa morom ñu xam la en 2015 kenn xamuloon Boy Faye en mu ngi def ay raw gaat la doon def 2016 mu ñëw mu ne ma damay yéeg luur ma ne ko non mu ne ma damay yéeg ma ne ko lu tax mu ne dama bëgg ku kuñ tuddee nit tudd ma donc tey yàlla def na suturaal nañu ba yegg na foofu donc fu ñu tuddee nit ñi tudd ko donc bu doon ragal mënul indi boppam foofu nee naa la fépp fu mu yegg ci làmb moom moo fa andi boppam ak jàppale suñu borom ak Ibrahima Niang ak ñun ñi nga xam ne ñooy mbokkam nekk ci ginnaaw mais amul benn soutien boo xamante ni ba de taay bu yeneen moromu mbërëm yi am bu ko amoon konoon weesu na fii nii. waaw pour mu dem Maroc entraîné ñi sax dañuy dajale suñu xaalis yónnee ko boo defar mu dem bu ñëwee ñu génnewaat suñu xaalis euh, def préparation yi abonné ko salle mu def lépp. rien que pour mu nekk à l'aise malgré nos nos maigres moyens ñu ngi koy jàppale parce que fit la ñu wan ak fulla saa su wane woon ñàkk fayda wala mu wane ak yambar boo xam ne su demee ci làmb premier tirage deuxième ñu daane ko non konoon bàyyi nañ ko parce que amuñu temps di investir suñu alal wala suñu xel wala suñu doole ci koo xamante ne gëm nañ ne du dem mais gëm boppam ak gëm-gëm bi ñu am ne mun na sëri moo tax ñu koy jàppale l'an 2000 nag euh, am na droit attaquer Garga donc man foofu laa doon xaaree interview mooy mu attaquer Garga parce que Garga adversaire am la kenn mënul dindi loolu parce que euh, adversaire yi leen boole moo garga dafa bëri Sépertoire boole na leen Saalum Saalum boole na leen assurance boole na leen keneen ak keneen boole na leen Kalaaf aussi boole leen kon am na droit attaqué garga garga nag mook booy fay relation yu baax lañ am parce que garga <laughs> fu mu waxee baa tey ginnaaw bu tuddee Serigne Babacar Sy pare sëñ Mansour la lay tuddal. Mm-hmm. sëñ maam la axan la ci booy fay sunu maam axan la kon lu leen boole euh, du làmb beneen bi ñu bokk dëkk ñoom ñaa ñëpp dëkk unité 4 ba fay 2016 ba léegi mu ngi dëkk unité 4 sa famille fa yeewoo donc ñu lay bëggee nga gis fa écurie bu fa nekk am ay champion ñu ñëw la taf la seen wet ngeen ànd di liggéey di entraîner vraiment loolu nag gisuma ci crime vraiment gisuma ci crime vraiment parce que nag. loolu bokkul ci li yàq làmb parce que booy fay bu ne doomu doomu ginnaaw raay la ba léegi muy bëree ci turu écrit Bathie Seras ba tey muy mu am relation bu rafet ak waa parcelles yi ba pare ne du bëreek ñoom te écrit ginnaaw raay bi mu nekk am ñoo xam ne mën nañoo bëreek ñoom bu ñuy bëreek mbëru parcelles yi est-ce que du poser problème ci kaw Boy Faye Modou Lo suy bëreek mbëru mbëru mbëru Fass yi nu nu Papa Sow di def mbëru Pikine yi du ñuy bëreek euh, Gris Bordeaux mm. ku ne gis na diggante relation am ak ak ak Gris Bordeaux relation Ama Baldé ak Balla Gaye lu gën a jege amul Ama Baldé euh, Balla guy gi euh, nu mu mel Ama Baldé bëriwut ak guy gi adversaire direct lañ lu yàqul làmb dama ne la làmb sport business la léegi comme na ko sunu grand bi sunu mbokk Saalum Saalum bi tey doon waxee business la relation amicale nag am na. parce que tey business parfois fu mu mu bu duggee ci relation mun na yàq mais euh, tekkiwul na dafa nekk parcelle rek waa parcelle dootuñ bëre waa ginnaaw raay mbiru parcelle it booy fay day bëre ñoom de. mbiru ñaan ku ci mel ne booy fay ku ko tëggoon moo franc dinañ bëre. saf ba mu saf ku ko tëgg moo góor ñu bëre ku ko tëgg moo yëkkani senior ñu bëre. moo garga de ku ko tëgg mu bëre. munuñ bëre non munuñ bëre parce que naan Ibrahima Niang mi yar booy fay moo yar garga de moo ñoo doon bokk benn bu ñuy fanaan benn lal di ko fanaan. kon su ma déggee wax ji sëñ Bass mooy booy fay Garga Mbossé la fi bàyyi ak Garga 2. ku dul moom. dóor dóoraat foofu. dóor dóoraat la fa bàyyi ak euh, Garga Mbossé numéro mais booy fay booy fay góor sax ñu ngi bëre ci mbapat yaa ngi gis loolu yow. moom Franc ñu ngi bëre ci mbapat dooy gis mbapat euh, Franc samp fii béjjënam ci mbokaay góor soog teg ko fële mos ngaa gis góor soog muy dox ci mbedd te gisoo Franc. mosul am su amul rek bon su amee rek mooy ñoom ñaar nekkuñ dakaar mais buñ nekkee dakaar foo gis kii gis fa kële te pourtant ñu ngi bokk tournoi di bëre bu leen tirage boolee ñu bëre ça loolu mooy làmb loolu mooy làmb mais booy fay parcelle la dëkk mais base ginaaw ginnaaw raay la maintenant soo amee base ginnaaw raay ba pare nga nga nga ñëwaat parcelle amaat fa beneen base mais loolu day yokk sa background te background nag dafa baax ci mbër ginnaaw am doole mais mooy jàllale mbër. te nag foofu la toll parce que tey eh, fi mu dëkk ci fi la mbokkam yëpp nekk mooy saxlum saxlum yëpp ñu ngi parcelle pratiquement te parcelle la dëkk tey booy fay doomu saxlum la waa Kaolack la eh, yaayam Kaolack la dëkk njóobi dëkk mu yox njóobeen taaleen ah papaam dëkk Fatick nekk chef de quartier Fatick Ndouk def lu nekk Fatick yaa ngi dégg ñëpp xam Kéba Bousso ku dugg parcelle di ko xam ku dugg ku dugg Fatick xam nga ko kon bu ñëwee parcel ñëw ci ay mbokkam ah mais waa parcelle duñ ko seetaan waa dóor dóoraat aussi duñ ko seetaan parce que Boy Faye sparring partenaire la nee naa la. gis nga lu mu liggéey daaw ci combat Garga Mbossé ak Moussa Ndoye bi liggéey bi lépp Garga Mbossé moo Boy Faye ñoo ko def. kon donc loolu aussi avantage la Garga Mbossé di contact ak Boy Faye mais gañaa gagnant la. ñun dañ ciy gagné moom mu gagné ci. loolu moom euh, ginnaaraay mënuñu ko yàqal te waxul l'an 2008 taxul mu yàq diggante Garga mboose ak euh, booy Faye nañu meloon tey dafay gën a dëgër hmm. man conseil nga am booy conseil yenn mbër yeeg ku ci mel ni booy fay ak ñooñu ndax waxtu bi ñu amoon ci waxtu jot. waaw waaw man ñooñu ñooy sumay mbër. Euh, mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci lut simple bi. ma gis euh, nu ñuy sonnee ci làmb ak euh, li ñu am ci talent ku ci mel ni ñoom Sele mais gis nga ko. ba léegi amagul combat Dakar bu mag. ban mbër moo ko mën a bañ champion d'Afrique une fois Sele Mele. ah booy fay champion d'Afrique xale bu ndaw. trois nga toog trois ans mënoo bëre hmm? François ñooñu nekk ci lutte simple bi ñoom Caaka Faye ñaata at. Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang gars yi duñ leen nangoo jël ñu bëre raison bi mooy lan gars yi ñoo leen daax bëre. loolu loolu kese la mais ñooñu tey mais na si promoteur na leen leen tëggal sax clash seen biir au moins ñaar wala ñett génn ci tey boo amoon clash bu mel ni ay ñoom nga boole fa ñoom booy fay ñoom Ngel Jond ñoom Grand Mbagnick ñoom François ñoom Reug Reug ñoom Cheikh Tidiane. ah ñoom caaka fay ah ñoom ordinateur mais champion yooyu noonu ñu bëgg a jël làmb ji rek téye ko ci waaw fan si club bi ñoo la ngemb ah promoteur bi kii la nga am benn businessman bu nekk si kaw di lay jëndal ay cinq talons six talons ñu tëgg ñooñu mais day loolu mooy rey làmb ji mais les vrais lutteurs yi amateurs di xaar ñi nga xamante ni amateurs ñoo leen seetaan laa la wax bëree guñu puus ñu bëree te ñun si loolu la ñu nekk. muy booy fay muy keneen ak keneen moromam ñi koo ci demoon dëkk micro nga ne ko Bass Sakho dina la wax ne jàppale bi muy jàppale booy fay moom la may jàppale parce que ñoom ñëpp sunu ay rakk lañ nee naa la yàgg naa dem ci seetaani tournoi euh, ko inscription maa koy daggal parce que 1000 francs yi ñuy jox pour inscrire koo xamante ni si làmb laa ko fekk rek leen jàppale parce que sunu ay rakk ba pare ñu nekk amateur yàlla dénk ñu tuuti ñu mun leen dimbale dañ leen siy dimbale di leen ñaax na nañu góorgóorlu fonk seen ay mbokk fonk seen ay nitu démb nee la mbër ñaar ñii la war a àndal ki ko mën a dimbale ci alalam ak ki nga xamante ni mbokkam la keneen ku ci topp it mënul la indil dara ku la mënul dimbale parce que mbër dafa soxla ndimbal mbër dafa soxla ndimbal parce que làmb dafa métti ku la mënul indil dara ci wàllu ndimbal ak nga xam ne bokk te dara suy ànd ak succès bi dong moo ko fa bàyyi mais bis bu fa succès bi jógee dootoo ko fa dégg kon mbër yi nañ fonk seen ay mbokk fonk seen ay nitu démb fonk seen làmb te xam ne làmb mun na indi lu ne làmb teraanga ju ne mu ngi ci làmb kër ngi ci lépp ngi ci ku xool tey Balla Gaye xool Yékini xool tey Tyson xool Modou bi am ma seen giir Bordeaux di nga xam ne làmb du li ñuy fooy làmb dañ ko war a fonk di leen gërëm yéen aussi yéen waa wasaare làmb di leen féliciter di leen encourager eh, ya bi ngeen ñëwee yàggul mais liggéey bi ñëpp gis nañ ko ñu ngi rafetlu qualité liggéey bi qualité image bi ak euh, mode bi mooy fast track bi si li nga xam ne mooy la président woote gaawaay bi. parce que amateur loolu la ñu soxla laam yi day def léegi ngeen teg ko léegi loolu la ñu soxla tey dañ doon toog di xaar deux jours trois jours doog a seetaan làmb mais tournoi buy jeex teg ngeen ko donc ñu leen di encourage leen fësi li leen ñaanal yàlla yokk leen bu ngeen yëg ko ngeen dem ba affaire bi doon ay télé télé télé yàlla yokk leen yéen tamit si seen liggéey. jërëjëf sëñ Bass kàddu bi rafet na loolu macha allah boo nekkee magum mbër boo waxee nii rek. jaadu na wane nga ni mbër yëpp say rakk lañ tey boo nekkee ci làmb nii nga war a mën a def uuf say rakk ñëpp ñu doon benn ndax ku gañe rek sa rakk moo gañe kàddu yi rafet na lool te lii la wasaare làmb doon séentu ci yow gis nañ ñaan gi li ngay ñaan nii ci wasaare ñu ci bari ci làmb moom la ñuy ñaan waaye wolof nee na doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy donc koy ñaana gudd fan rek ndax bu guddee fan rek rëy gone wasaare làmb gépp wala wasaare gépp ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ndax xam nañ seen yéene ak seen cofeel ak seen bëgg-bëgg ci wasaare jërë ngeen jëf noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci xew-xewu làmb ak beneen ndaanaan ci làmb jërë ngeen jëf